ñu ngi delluwaat di santaat yàlla suñu boroom subhaanahu wa ñu ngi kañ yàlla suñu boroom subhaanahu wa ñu ngi bàkk yàlla suñu boroom subhaanahu wa taala xam ne balaa wàcc na suñu kaw balaa boobu mooy li ñu dal ñu ngi ñaan yàlla koronaa bi yàlla na fi jeex ñu ngi ñaan yàlla corona bi yàlla na del na dëñ ba mu ba mu mel ba mu mel ni mbuy mbuyal corona bi yàlla nañ tàggoog moom ñi ci feebar yàlla nañu wér ñi ci feebar yàlla nañu wér ñi ci jotagul yàlla buñ ci musa jot ñi ci faatu yàlla leen yàlla yërëm yàlla xaare leen aljana ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa maa ngi jaajëfal suñu médecin wu réew docteurs yi infirmiers yi aides soien yi sages-femmes yi mbooleem ñiy yëngatu ci wér-gu-yaram ñu ngi leen di jaajëfal ci taxawaay bu mat sëkk bi ñu am tey ci kanamu askan bi di leen faj ñëpp daw nañ hôpitaux yi ñëpp daw nañ district yi waaye ñoom ñu taxaw jàkkarlook ñi feebar delloo leen ci yàlla def ci ñoom xam-xam ba ñu wér delloo seen sago yàlla na leen yàlla fay yàlla na yàlla taxaw médecin yi yàlla sàmm leen yàlla aar leen ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi maa ngi ñaan nguur gi di gouvernement bu Sénégal nañu jël ay leçon ci corona bi nañu jël ay leçon ci corona bi nañu waajal ay hôpitaux yu mucc ayib ay hôpital yu niveau un yoo xam ne mën na dalal xeetu jàngoro bu ne ndax lu mel ni yàlla tere mën nañoo dalal maa ngi ñaan wuur gi médecin yi na leen yokk aides-soignants yi na leen yokk sages-femmes yi na leen yokk docteurs yi na leen yokk bu ñu yem ci yokk rek nañ leen yokkal seeni saleer ndax tey ñun ñépp ñu ngi suñu biir kër ñoom rek ñoo nekk en face ak corona tey géej nañ xam li seen lal yi di saf géej nañ xam luy seen njaboot yi nekkee géej nañ xam lu xew seen biir kër ñu ngi ci hôpitaux yi 24 heures sur 24 jàkkaarloog risque boo xam ne kenn mënula la nu mu mel maa ngi ñaan gouvernement bu senegal na yokk seen salaire maa ngi ñaan gouvernement bu Sénégal na leen jox ay kër maa ngi ñaan gouvernement bu senegal na leen jox ay oto maa ngi ñaan gouvernement bu senegal na leen gën a bàyyi xel ndax koo xam ne bu ñu jàqee ci ñoom lañ jëm ñooñu dañoo war a dal bu ñu dalul. ñun askan bi duñu am dal mukk yàlla nañu yàlla may dal di jaajëfal suma mbokk soldaar yi mbooleem corps paramilitaire yépp mbooleem force défense yépp mbooleem kuy takk der ci armée ci gendarmerie ci police ci sapeur pompier ci eaux ci mbooleem ñiy takk der di leen jaajëfal

Podor ba Cap Skirring soldaar yaa ngi fa Ross Béthio ba Kédougou soldaar yaa ngi fa ñu ngi ci risque bu nekk waaye xamatuñ seen neexaayu lal xamatuñu seen i soxna xamatuñu seeni i njaboot xamatuñu seen biir kër lépp mobiliser nañ ko pour réew mi ak askan gi am jàmm yàlla na yàlla fay soldaar yi di ñaanaan nguur gi arme bi police bi gendarmerie eaux et forêts yi sapeur yi ak mbooleem ñiy yëngu ci wàllu kaaraange réew mi na leen defal ay prime bu corona bi jeexee ñu ciy fayeeku cent mille na leen yokkal vingt cinq mille ñu ciy fayeeku cent cinquante mille na leen yokkal cinquante mille muy deux cent mille ñu ciy fayeeku cinq cent mille na leen yokkal six cent mille maa ngi ñaanaan nguur bi soldaar yi nekk première classe nañ leen defal ay promotion ñu jàll deuxième classe ñi nekk deuxième le troisième ni commandant le colonel ni colonel le général ndax mérité nañ ko état d'urgence bu ëpp daanaka ñetti ken kenn ci newul sa njaboot ñu sommes ci kaw tali bi guddeeg bëccëg nelawuñu réew mi ñëpp la war a nous sommes njukkal le yi yàlla y yàlla fay yàlla ni taxaw sommes ni yàlla sàmm yàlla ni fu yàq kon nous na bàyyi xel jàppale leen dooleel leen kattanal leen wan leen yoon jox leen ay financement yoo xam ne dinañ mën a liggéey ba li ëpp li ñuy dundee muy bawoo ci suñu kaw suuf yàlla ñu yàlla defal jàmm yàlla nañu yàlla defal tawfiix ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa maa ngi sàkku ci borom alal yi ñi yor koom millionnaires yi milliardaires yi nañu dimbale waaye néew ju doole yi mbokk yi miskin yi sonn nañ kenn lekkatul ba suur kenn naanatul ba màndi du tëdduwaay yu baax du yére yu baax du dara tey boroom doole bi woote ci benn émission ci télévision ñuy tàgg sëriñam wala tàgg waa këram wala tàgg xaritam wax ci kaw publiquement ne may naa la un million. yàlla na yàlla sotti yërmandeem ci ñun yàlla na yàlla sotti barkeem ci ñun yàlla na yàlla sotti xéewalam ci ñun ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. di tatagal ñépp di baalu ak ñépp